bu ngeen nekk dans le bain de li ñuy waxtaanee ak gravité li ñuy waxtaanee may jéggalu nag ci sama qualité exposition à venir parce que dama préparer woon sama ay not mu réer donc je serai obligé dire rapport bi di wax ci wàllu chiffre pour bañ a juum am na yu ma jàpp mais am na yoo xam ni war naa ko xool c'était l'objet des note que j'avais perdu que j'ai perdu mais dinaa jéem a def un effort de restitution de toute façon euh, documentation bi prouvé li ngeen gis ci documentaire bu ndaw bii yëpp euh, moom laa leen bëgg a plus cette vidéo elle-même nga xam ni rush la amul logo amul dara ku nekk mën a traité nu mu ko neexee léegi la première information mooy Sénélec ne produit que 26 pour cent euh, Moustapha Sénélec ne produit que 26 pour cent de. l'électricité qu'elle nous vend maanaam courant bi ñuy Senelec di jaay ñaari fukk ak juróom-benn yi lay defar ci téeméer bu nekk la ca des da koy jënd ci ay producteurs indépendants te ña ñuy waxee producteurs indépendants ñi ci ëpp ay tubaab lañu ay français ki italien ki américain ak ay turc ñoom ñooy jaay Senelec courant ñay làqu ci gannaaw ñooñu nag. ay ancien DG Sénélec ku mel ni Samuel Sarr ay ancien ingénieur Sénélec wala ay conseiller à la présidence yu mel ni Arona ja wala ay homme d'affaires yoo xam ni banque da leen di fayal seen i bor comme Khadim Ba ak ñu bëri ñoo xam ni mënuñu leen lim ñoom ñëpp ñoo nekk ci gannaaw producteur indépendant yooyu donc information bi mooy 74 pour cent ci courant bi ñuy consommer ñun la Sénélec di jënd te mu ngi ciy dépensé at bu nekk quatre cent cinquante et un milliards cent cinquante et un milliards mën na defar ay centrales yi centrales ça dépend ci dimensionnement wu centrale yi parce que boo jëlee centrale bu mel ni centrale wu West Africa Energy bi nga xam ni Samuel Sarr Arona Dia Khadim Ba ñooñu ñoo ko ñoo ko moom ak turc bu ñuy wax Ahmed Chalik dinañ ci ñëwaat kooku Coris Bank mu ngi leen financé deux cent trente milliards. kon kuy fay quatre cent cinquante et un milliards par an ay producteurs indépendants mën nga defar au moins ñaari centrales yu mel noonu yuy produire trois cent mégawatts chacune kon lan mooy pertinence ngay louer centrale pendant vingt cinq ans ba noppi di jox doxandéem yéeg ay cadre Senelec ak ay ancien DG Senelec ak ay ancien ministre de l'énergie ñu nekk ay producteurs indépendants de courant Senelec c'est la société nationale d'électricité rôle moo ñu fournir à la nation de l'électricité rôle du pour jënd jaayaat ma jox leen benn exemple dégg ngeen barrage Manantali am na barrage hydroélectrique mais est-ce que xam ngeen barrage hydroélectrique gu Manantali producteur indépendant la Sénégal moomu ko loolu doyul waar courant boobu mu ngi génnee ci njëgu vingt cinq francs la kilowatt heure juróomi dërëm le kilowatt heure mais au lieu ñu jox ñu ko dañ koy jaay Gambie cent trente cinq francs le kilowatt heure mu jur vingt six milliards par an pour Sénélec donc moom mu ngi commerce sax ci loo xam ne euh, depuis jamonoy Senghor lañ ko xalaatoon pour régler ay problème courant wu Sénégal ñëpp gis nañu champ solaire u Malicounda président Macky Sall di ko inauguré champ solaire boobu 22 milliards la coûté kuy fay 451 milliards ay producteurs indépendants par an boo jëloon option mix énergétique wala wala wala énergie solaire ñaata centrale de 22 milliards nga ci mën a tabax par an mais centrale yooyu dañ koy signer en concession de cinq ans après ñu koy doog a moom. te ay milliards yi milliards yi milliards lañ ciy fay loolu moo tax courant du mës a wàcc Sénégal day mës a cher Sénégal dem leen di résumer rek après ñu dugg ci détail pourquoi du mës a wàññeeku Sénégal exemple bi ci gën a leer mooy bateau turc bi ngeen gis fi car powership la tudd bateau boobu depuis 2019 la rek signé contrat ak bateau boobu Euh, contrat bi cinq ans lay durer cinq ans yi renouveler nañ ko parce que 2019 2024 c'est cinq ans léegi bato boobu euh, cent quatre-vingt-treize milliards lañ koy fay at bu nekk waaye léegi cent quatre-vingt-treize milliards cinq ans yi jege na mille milliards yoo xam ni Sénélec da koy fay te du ko mës a moom bato boobu. parce que dafa am lu ñuy wax BOT moo xam ne dangay investir build operate and transfer da ngay da ngay investir exploité benn diir après joxe matériel bi mu nekk moomeelu Sénégal mais dafa am BOO build own and operate yow yaay moom yow yaay exploité bato bi format boobu formule boobu la léegi chaque année ñu fay bato boobu 193 milliards yoo xam ne 109 milliards yëpp. marché d'hydrocarbures la parce que bateau bi contrat bi daf ko violé d'abord foofu laa njëkk a taxaw bateau bi dañ ni woon gaz lay produire courant gannaaw 6 mois yu ko jiitu pour pour mu ñëw donc 2019 bi mu ñëwee plus 6 mois la waroon fonctionner au fioul li ci des yëpp gaz la waroon a fonctionner léegi ba tey jii nii fonctionner gul au gaz fioul lay con euh, fonctionner ba léegi donc terme contrat boobu. rompre nañ ko mais ci marché livraison hydrocarbure bi dafa am ñu ci am intéret dafa am ñoo xam ne dañ cee am intérêt donc loolu moo tax le directeur Mamadou Biteye ba woon ak son secretaire général Moussa Dieye même l'actuel directeur général ci top management bi nga xam ne ñoo doon opérer loolu la bokk même l'actuel directeur général ci top management bi doon liggéey loolu la bokk kon tey jii mu am benn ñaareeli bateau mooy bu bleu boobu am bul yi ba nga xam ni méthanier la ñoom ñu koy tuddee FSRU wala FSRU pour anglais yi bateau boobu moo waroon a approvisionné bi defar courant en gaz mais 2021 ba léegi mu ngi fi set indiwul toxu gaz donc contrat yooyu euh, comme ni ngeen koy gisee ci euh, image yi euh, Moustapha bi tey moo ko signé Pape Demba bi tey moo ko signé ak euh, Moussa Dieye secretaire général Sénélec ba woon léegi secretaire général bi remplacé Moussa Dieye tey jii moo nekk directeur généralu Sénélec te pratique yi fi yi may dénoncé yëpp euh, top management boobu moo ko waraloon may may ñaan ñu def téléphone yi silencieux donc lii tax na bokk na ci li tax courant bi du wàcc mukk mais ci kaaw bato boobu ñan ñoo nekk ci gannaaw mooy Ahmed Thialik bi nga xam ne dimbali leen ñu ci téléphone yi waaye Ahmed Thialik bi nga xam ne euh, moom la premier ministre recevoir bu yàggul te ñu wane woon photoom te ma yëglu ci woon Ahmed boobu ak mbokk turkam Karadeniz Poweship ak ki ñuy wax euh, euh, Fuat Tosyaali benn lobby turc la boo xam ne dañu bëgg a teg loxo ci secteuru énergie ci Sénégal Euh, boo demee Banjul benn bateau bu mel nii mu nga fa Carpo ship Samuel moo ko fa yóbbu boo demee Sierra woon Ghana ñu nga fa ñu ngi ci huit pays africain donc ñooñu ay conquête nouvelle la ñuy def te ñoom nee nañu seen seul concurrent mooy les centrales classiques yi defar courant kon mooy centralu Senelec yi defar courant ñooy seen seul concurrent te nee nañ ñooñu sax doyuñu leen concurrence parce que ñoom ñoo gën a oyofle njëkk dinañu dugg ci contrat yi ku euh, ngeen xam ne lu leer la te ñun euro lañ leen di fay ay lettre de crédit lañ leen defar ak ay SBLC donc loolu dafa ëmb benn mafia turque bu nekk ci gannaaw boo xam ne Samuel Sarr la ñuy liggéeyal c'est le moment nag de faire la transition sur West Africa énergie comme xas naa ba tudd Ahmed Chalik parce que euh, j'ai j'ai pas suivi le fil de mes notes Ahmed Samuel Sarr Arona Dia Khadim Ba ak ñeneen ñoo xam ni nanguwuma leen a tudd ñoo dem ci Coris banque Coris banque financé leen deux cent trente milliards pour ñu samp benn centrale biir Cap de Biche pour jaay Sénélec courant centrale ba sax am na lu ci empiété ci sept hectares yu yu jàmbur moom loo xam ni kooku dossier foncier la bu ñu war a lijjanti lu bokkul ak centrale yi ci boppam mais. centrale euh, West Africa Energy boobu li tax mu doy waar parce que concession vingt cinq ans la tamit léegi ci vingt cinq ans li mu leen di jural boo ko dajalee day doon trois mille cinq cent milliards Sénégal doog ko moom yaa dans vingt cinq ans xëy na man duma ko fekkee mais ñoom dañ ci amassé seen milliards yi milliards ba mu tolloog trois mille cinq cent Sénélec doog a hérité d'une installation vétuste boo xam ni opéré na vingt cinq ans loolu c'est de l'arnaque loolu képp ku ko signé criminel nga képp ku ko signé yaa ngi noot askan bi courant yi da ngay gis compteur yëpp c'est au rouge yëpp di sonné kenn mënatul fay courant kenn ñemeetul taal climatiseur lépp a cher li usines yi di produire courant njëgam da ciy doon trente pour cent maanaam téeméer bu nekk fanweer yi da da da da koy représenté pourquoi parce que am na ay hommes d'affaires yoo xam ne mais nag ngeen mën a comprendre un ancien ministre de l'énergie man ma acharnement mais dafa am loo xam ni man sama xel nanguwu ko sama deret nanguwu ko naka la ñu mën a comprendre un ancien ministre de l'énergie fekk balaa ngay nekk ministre de l'énergie yaa nekkoon directeur général u nga ñëw nekk producteur indépendant di jaay Sénélec courant indi say turc tey jii ma jékki-jékki gis turc boobu wiiri ci gannaaw ànd ak keneen dem ci président Ousmane euh, ci premier ministre Ousmane Sonko alerte naa ba ma war alerte léegi nag top management nu Sénélec bi nga xam ni pratique seen pratique laay dénoncé ci ñoom la ñu tànn kenn le secretaire général mu nekk directeur général bu Sénélec je crois que problème mu dañ ko war a régler donc West Africa Energy dinañ ci def beneen communication spéciale parce que dafa am ay violation ci contrat bi ko lii ak Sénélec loo xam ni kooku beneen beneen mbir mais pour